dañuy gërëm yàlla rek ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi lool ci ànd ak wér tey ñu nekk fii ci Kër Ñang ci bassin bi nga xam ne bi mu tawee 72 millimètres ci Touba bërki biig dafa debor déborder dugg ci kër yi muy lu metti lool looloo tax tey directeur u ONAS ànd ak sous-préfet ak mairie bi ak kuréel yi nga xam ne ñoo yëngu ci assainissement ci dëkk bi ñoo ñëw fii à la suite du gouverneur de la région de Diourbel démb njëw masawu population yi xool aussi euh, yan mesure la ñuy jël ci proposition yi nga xam ne visite du gouverneur bi démb ak administration génne na ko may jël kàddu nag ci turu maire Abdoulaat Ka ànd ak sëñ Xaadim Sam ànd ak euh, Badara Niang ak euh, euh, ak le directeur de cabinet du maire mu wax ñu ne ñu ne nañu ñëw ànd ak DG taxaw ci kanamam li ñu njëkk a def nag ci turu maire bi mooy masawu population yi ci lii ñu jus xam ne liggéey la buñ fi def ci ONAS ak ñi ko seq waaye tey liggéey boobu euh, euh, gis nañ ne am na ay jafe-jafe yu mu indi ci population yi bi mu tawee looloo tax maire nañu nañu ñëw ci wetu administration bi taxaw ci population yi pour ñu jël ay mesures yu idoine pour que population yi mën a génn ci jafe-jafe yii euh, loolu nag ñu ngi ci gërëmaan ñëpp mais ci liggéey jiitu sant l'état du Sénégal ndax nag luñ mën di wax en matière d'assainissement eau pluviale ak eau usée euh, gouvernement bi ak ONAS def nañ fi ay jumtukaay yu bëree baree bari ci dëkk bi yoo xam ne mën naa lim euh, station de pompage yi fi nekk ci dëkk bi mën naa lim aussi canaux de grand diamètre yi ñu fi def ak station réception d'eau yi comme bu bii nekk ci Kër Ñang ak Daaru Rahman ak yeneen liggéey yi nga xam ne def nañ ko ci dëkk bi ak yeneen ñi nga xam ne dañoo am ndigal dugal ci seen loxo muy Touba ca kanam kon yooyu yëpp dañ ci sant di di ko gërëm en tout cas population yi li wax mooy mooy population yi li ñu wax mooy lii ñu wax ne ndañ leen defar ay van ba lii jafe-jafe bii am dootu amati loolu ñëpp ci d'accord loolu ñëpp ñoo ci d'accord kon ñun fas yéene nañoo taxaw ànd ak euh, administration bi muy gouverneur muy préfet ak sous-préfet ak directeur ONAS ba jàmbat yooyu ñu wax ba jàmbat yooyu ñu wax ñu defal leen ay ay ay vannes de régulation fii euh, euh, ñu def ko dans les brefs délais leneen li li may wax mooy lancer appel état bi ak gouvernement bi. pour que population yi ñu jàppale leen ñu jàppale leen bu baax a baax ndax ñu ngi ci ay jafe-jafe loolu laa bëggoon wax ci turu monsieur le maire di wax ñëpp rek nañ dal en tout cas daal fii moom ndigal rek lañ ci fas yéene jëfe kon lu ñu war a def rek danañ ko def ci ci ci ci ci ci wetu administration bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm. ñun euh, li ñu fi tax a ñëw mooy sunu devoir et di assumer nag li fi nekk mooy euh, en fait. responsable état parce que station de pompage bi waroon na peut-être xool nag lañ koy étendre mais di wax ni rek yàggul étendre nañ ko en deux mille dix neuf deux mille am dañ koy yokk donc te yokk boobu day day continuer te ñoo ngi ci pour ñu gën ko yokk nga xam ni li nga xam ni mooy ndoxu ndoxu ndoxu taw war ko drainer mu ñëw fii ñu xool nañ ko ñu koy gérer naam ah loolu jafe na lool mais dañu xool dans un premier temps comme solution. ñun ONAS Touba ci kanam mairie ak projet Promoville ñu xool naka la ñuy réfléchir naka la ñuy euh, càmbare li nga xam mooy réseau de drainage des eaux suñ ko xoolee ba pare ñu xool naka la ñuy euh, bloqué euh, ndoxu taw boo xam ni mën na dem ci koñ yi te dugg dugg ci kër yi mu dem ci tali yi te dugg ci kër yi mbedd yi te du dugg ci kër yi ñu bàyyi foofu am ndox moo gën ñu bàyyi kër yi kër yi am ndox ci loolu dañ ci liggéey ci ak sunu naataango yi. beneen bi mooy ñu xool naka la ñuy yokkee capacité pompage bi en quoi faisant donc mur bi dañ koy gën a yëkkati mais avec une assurance bu am sécurité ba nga xam ni ndox mi déjà donc su demee ba nga xam ni euh, ndox mi mën na yokk en capacité donc ñu def loolu pour que quand li nga xam ne dafay ñëw mu gën a mu gën a rester sur place donc ci côté boobu je crois que suñu jógee fii dañ ci taxaw nu mu gën a nu mu gën a gaawee beneen bi mooy ñu mettre en place benn dispositif d' alerte parce que je crois que dispositif alert boobu su amoon am na bassin fu mu toll niveau bu mu toll su alerte donc population bi dañu teel a yëg affaire bi pour jéem a faggandiku problème ba am te loolu à partir d' aujourd'hui je crois que système d' alerte bi ordonnance daan ko fi teg nga xam ne ñi fi nekk ñu yombal leen liggéey bi parce que biñ demee ba nga xam ne affaire bu débordé na il fallait voir li nga xam ni mooy inquiétude ki fi nekkoon jaxle ñëw di fëgg kër yi di wax ni lii mënatuma ci dara donc dafa nekk loo xam ni lu xaw doy waar la donc tiré nañ ci leçon ba nga xam ni am na loo xam ni dañ ci jël ay ay décision ay mesures yoo xam ni pour ñu mesurer loolu li ci des mooy je crois que ñu xool naka la ñuy euh, yokkee capacité pompage yi donc pour ndox mi nga xam ni moo nekk fii ñu gën ko gaawal yóbbu au niveau du bassin de stockage ci loolu dana tax aussi ñu yokk aussi capacité donc de refoulement mooy tuyaux yu jëm directement ci bassin Darou Rahmane stockage boobu te suñu demee bassin bi aussi il faut foofu aussi ñu yokk ko ba nga xam ni ndox bi ñëw foofu ñu gën ko stocké foofu foofu foofu ci euh, Darou Rahmane donc système boobu foog ñu sëkkandiko pour trouver une solution par rapport à à cette gestion donc provisoire li ci des mooy. Euh, de façon matériel bi ñu àndal donc ñëw nañu andi nañu aussi trois pompes parce que bi ñu ñëw dañuy wax ni kat li ñu xalaat naam station bi la mais sinistré yi ci la bokk moo tax ñu ñëw ak deux pompes moto pompe ak benn électropompe boo xam ni donc 400 mètres cubes par pour au moins ñu jox ko à la disposition du préfet donc à la disposition donc des brigades sapeurs-pompiers pour ñoom ñu mën a accélérer pompage ndox mi donc mu mën a ñëw fii ci ci bassin bi nu mu gën a gaawee nu mu gën a gaawee kooku mooy priorité donc pour nit ñi gën a vraiment ñu ndox mi génn seen seen kër yi maintenant li ci des nag mooy à à long terme parce que mën nañu xool Touba étant la deuxième ville du Sénégal donc mu am benn bassin principal mu am benn bassin stockage donc war nañ xalaat ni kat am lu des moo tax bi ñu ñëwee fii euh, yàggul lool defoon nañu benn atelier partagé li nga xam mooy plan directeur d' assainissement mu xayma lépp loo xam ni mooy assainissement bi war ci Touba muy. ci ndoxu ndoxu taw yi muy ci ndoxu gànnawaay yi plan boobu ñu partagé ak acteurs yëpp ak waa mairie ak ñëpp ak euh, euh, les autorités ba ñëpp xam ko mais li mu wane mooy il faut à Touba ñu am ay bassin de rétention au moins quatre yoo xam ne de part et d'autre ñu def ko fa ndox yi mën a répartir carrément dispositif yi muy àndal mooy station bu mel ni yeneen station yi ndaw yi yeneen ak vraiment de drainage yoo xam ni réseau yu yu ko kooku nag c'est à moins long terme ñoo ngi ci am ay requêtes yoo xam ne togg nañ ko ba pare li ci des mooy autorité ak partenaires financiers yi ñu accompagne ñu pour li nga xam ni mooy projet boobu mu ñu mën ko ñu mën ko teg sur place. directeur général ONAS ñëw na fi bam mu fi ñëwit ñëwit ñëwit ak loxoy kese andi na matériel indi ko fi sapeur pompier ñoo ngi leen di gërëm ñoom la ñuy njëkk a gërëm ndax boobu ba léegi ñoom lañ fiy gis ñu ñuy jàppale sonn nañ nag ba ca kanamu yàlla. ñoo ngi ñaan lii ñuy wax ni ñoo ngi ñaan xalif général lu mu dégg ko Sëñ Muntaxa mu dimbali ñu ci ndax ndox yi ba léegi mi ci kër yi ñu ngi koy pompé mais génnagul chaque inondation danañ yàqule dégâts matériels boo xam ne kenn mënu koo xayma ba ba fi muy waxee ni yow nii waxi kese lañ ñuy wax ñëw bind si kayit dem gouverneur nag ñëw na fi démb nee na dina sensé nee na waxi kese moom dootul fi am dana sensé ñuy alerte vannes yi nga xam ne nii proposé woon nañ ko démb. waa ONAS ñu ne comme que van lañ mën a xalaat ne comme moo fi moo fi gën ñu ne nañ kon nañ am ay van ñaari van van yi mooy day nekk jàpp ci canalisation chinois yi nga xam ne moo jógee ñaari étage ñëw ci bassin bi ak bi nga xam ne moo jógee gare bu ndaw ñëw ci bassin bi nga xam ne dañuy wàññi pression ndox mi il faut dëkk bi fees pour kër yi mën a bañ a am ndox il faut loolu ma koy dénk waa ONAS il faut ñu bàyyi dëkk bi fees ak ndox tali yi fees mbedd yi fees kër yi bañ am ndox loolu moom waaye bu ñu fexee dëkk bi biir dëkk bi set biir ville bi set mu set wi ci kër yi ndox yi ci kër la jëm bassin bi attanut attanut ndox yi nga xamante ni ONAS rek bi mu fi nekkee ak ndox yi taw yi fi doon ñëw bassin bi nu ko waxuma laak nag Touba ca kanam ñëwaat renforcer ko attanu ko il faut ñu wax ko fi mu toll nii may waxee yow nii ñu ngi koy pompe di ko dugalaat ci biir mais bu mu génnaat dugaat ci kër yi il faut ñu dimbali ci dégg naa directeur général bu ne dañu xool nu ñu yokkee bassin bi ni ñu ko yokkee waaye man damay wax ci sama xalaatu bopp ak ñi nga xam ñu ñëw dëkk fii. lii xalaat bi mooy bassin bi buñ ñu ko fi mënee jëleel comme que liñ liñ ko yokkee ci xaalis ñu jim ñu ko fee jëleel moo ñu gënal fop ndax saa yuñ ko yokkee tamit danañ amaat problème danañ amaat beneen problème buñ ko yokkee yokku miir bi dana dana déborder waat waaw ñu ngi ñu ngi leen ñu ngi leen di ñaan ñu dimbali ñu ci lii président de la république na dimbali na ñu dimbali ci lii sonn nañ tokki nañu tay fi mu dool nii fi mu dool nii may waxee yow nii fi mu dool nii may waxee yow nii lii ñëw am na doole lool ci ndox te taux yi koy yóbbu trois cent quinze ak quatre cent ak six cent ku ne xam ne néew na ci doole xam ku ne xam ne néew na ci doole fi may wax ak yow nii fi may wax ak yow nii gëw yaakaaruñu ñu màggali suñu këri yi te amuñu fu ñu nekk ñun dañoo amul fu ñu ne kër yi lañu am fu ñu doon ci démb deux heures du matin barki démb ba léegi ci mbedd mi la ñuy fanaan ñu suñu njaboot ak yooyu duñu màtt sonn nañ lool te ñun bassin bi li muy rëy rëy rëy ñun amuluñu benn njariñ waaw waxuma ko ngir xarab mais dama lay wax ne la fi nii amul benn giri boo xam ne nee ci koñ bi bu ndoxu taw ñëwee pour mu dugg ci bassin bi te ñun la gën a jege amu amu amu fi ci koñ amu fi ci koñ bi te saa yu basee bi ñëwee ñun ñoo première victime ñoo ciy loru nañ ñu dimbali sonn nañ solution bi mooy ñu jëlee ñu fi bassin bi moom lañ soxla